département xam nga teewal nañ ko fi ñun ñoo ko fi teewal kon mooy suñ grand comprendre di nuyu ko si ku si mel ni grand abo grand Malick liggéey xam nga ñoom Ali Gueye ñoom ñëpp ay ñoom grand Ndiaye xam nga bari nañ ko waa ñoom Mansour Kane lu ne la ñuy ñun ak ñoom jaaja ñoom laay siis xam nga moo fay nekk ak mbër yi mbër si lim parce que du ma si lim su ma si limee sele rek lim naa ñëpp te ñëpp a nañ kon yaakaar naa du ma fi nekk di si lim kenn Touba ñaata séance la doon def par jour man la séance yëpp si séance la bokk dama doon entraîné rek préparé mu woon combat sama supporter waa campement Ngexox waa zone Dior waa Petit Côte waa Saloum roi des arènes laa leen dig te incha allahu rabbi dama koy doon xale laa 97 laa am naa doole man naa bëre fit dama koo judduwaale si lëndëm gi laa juddoo 1997 le 30 décembre waaw man du ma ragal. léegi Toubacouta feeraay lañ lay jox feeraayu Pikine est-ce que xam nga ki ngay bëreel. waaw comme ni ko xale yi di waxee rek feeraay bu yàqu buy jaay feeraay kilom seerul yaakaar naa bu seeree ba seer 300 lay jar li may fay ci saa yi li may fay ci saa yi ëpp na 300 kon su ma ñëwee dama koy boole suñu weñ ñu def fee rek këlëm bi boo ko jaal incha allah rabbi mais est-ce que dina yombee noonu. Feeraay Pikine la dëkk Pikine bu Ama Baldé bu Boy Niang bu Eumeu Sène Pikine champion yi fa nekk yëpp nga ne da dem këlëb ci boobu foo teg loolu. waaw damaa njëkkee si moom rek mais incha allah rabi si ñoom Boy Niang laa jëm ak ñoom Ama Baldé waaw damaa njëkkee si Feeraay rek mais incha allah rabi si ñoom laa jëm foofu laa visé ñoom Ama Baldé ñoom Boy Niang foofu laa visé sama bët incha allah loolu laa gëm. mais Toubacouta ñu gis ne sa combat bi passé côté dóor bi Malick Niang yi moom moo la dominé woon nga jàpp ko daan ko Fera yi dina préparer loolu est-ce que Toubacouta renforcer na li nga xamante ne moom mooy xeexam. mais li li ma ko def loolu la ñuy boole si palmarès am mooy Toubacouta moo ko daan dóor bi duñ ko boole si palmarès am. loolu sa sa sa faiblesse la. waaw faible waaw loolu fàtte nañ ko. Ah. instant bi man lu nekk sama kanam lu ne dama koy faxas jàll li ay combat préliminaire la rek fu ma teg sama bët yàlla seize bi day bi day dem tool loolu force la munu koo bañ. yàgg nga ma koo wax de. yàgg naa la ko wax boobu ba léegi ñaata ngay gis may teg ay pas pour jot ci seize bi. waaw yaa ngi dox ndànk-ndànk. léegi nag ma mujj di daw comme que dox nang ndànk bi day yàggal léegi ma mujj di daw parce que nawet bi bëreetul ndox damay ragal nawet jeex il faut may gaaw. mais Touba bu loolu weesoo mobilisation bi buñ paree yen gars yi après ku am question dina ko mais mobilisation bi Toubacouta nañ la ko waajal ak autorité yi nekk Ngeko ak li wër pour gars yi naa li ma gis fii nii yëpp soxla ngeen ay ñu leen jàppale ci oto yeeg affaire yooyu gars yi mën a dem arène nan ngeen koy waajalee loolu parce que aussi promoteurs yi bu ñu tegee seen xaalis dañuy bëgg li nga xamante ne ñoom ñooy mbër di indi mbooloo pour su ëllëgee ñu.